wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma baad fa inna xayra alkalaami kalaamullahi taala wa tabaarak wa xayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al umuuri mahdasaatuha fa inna kulla mahdasatin bid'a wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar naudu billahi min annaar mbokk yi asalaamualeykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yu jiitu génn àdduna yal na yàlla xaare leen àjjana ñun ñi it nar fekk yal nañ leen fekk àjjana nuy jël ma julli tey ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi noo ngi gërëm ñépp kilifa yi góor ñi jigéen ñi lin nu sant ñu war ko waxtaanee mooy mujj aju yonent bi sallallahu alayhi wa te nga xam ni yonent bi ci dundam benn aj la musa aj màkka la juddoo dëkk fa jóge fa ñëw medin mais benn aj la musa aj muy aj boobu aj boobu mu aj nag dafa nekk aj boo xam ni dafa bind lu bari ci dund jullit ñi ndax yonent bi bi ko yàlla yónnee def na màkka treize ans ngir nit ñi nekk ay jullit avec difficulté yépp nag mu dund ko moom ak i famem dund ko ay pàppaam ay bàjjanam ay mbokkam di ko xeex di xeexit ñi mu àndal ba loolu moo sabab ñu exilé ko mu jóge Màkka dem Médine bi mu ñëwee medin def na foofu dix ci biir dix ans yam fa def yàlla yombalal na ko ña bañoon démb ci ay noonam ñu ëpp commencé nañoo dugg ci islaam mbokkam yi ko génnewoon woon bëgg xeex ak moom mu gañe leen ci xeex yu ëpp ñi ëpp ci ñoom del dugg ci islaam tombeek mu am ci ay at soixante-deux ans presque yoo xamante ni teg na huit mois bi ko yonent bi amee sallallahu alayhi wa sallam commencé na par mbooloo mbooloo di ñëw di dugg ci islaam ndax dañ daan def par benn benn léegi dëkku lëmm ñooy ànd ñëw ci kanamam ne ko dañuy tuub tuub dugg ci islaam loolu day wane ni rekk mission bi début bi metti woon na waaye mi ngi bëgg jëm ci fi ñuy récolter liggéey bi nga xam ni tey ñépp bëgg nañoo bokk ci islaam muy diine boo xam ni ñëw na reñe ci kaw suuf mbooleem puissance ya ko doon xeex sukk nañ ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def aj jot ci moom boroomam jox ko ndigal pour mu aj ci weeru safar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa woo Bilal ibnu Rabah bi mu ko woowee ne ko yëgalal ci jullit ñi ne leen damay dem yi ren ku bëgg a yi mën na ñëw ànd ak man ñu aji xam nga loolu ni jullit ñi meloon ci yonant bi su waxee lu mem lu mel noonu kenn du des ñépp préparé ci seen biir handicapé yi silmaxa yi ñépp ku nekk bëgg nga ànd ak yonent bi aj moo tax aj boobu nekk aj boo xam ni li ànd ak yonent bi kenn xamut nu mu toll ñoom ñépp ñu waaj dem màkka yonent bi di leen jàngal ni ñuy ajee ci la waxee saxaaba yi ni leen xuzu anni manasikakum fa inni laa adri laa alqaakum baada aami haada ne leen jëlee leen ci man nu ñuy ajee ma wan leen ko peut ginnaaw at bii duma dajewaat ak yéen kon nag occasion boo ko amee te leeru la ni mën na am doo amaat chance boobu kon nag danga nga war a profiter ci jël ci ay enseignement yu mag sahaaba yi ridwanullahi alayhim ñoom ñépp ñu bàyyi yonent bi xel bi ñu demee ba yow mu tarwiya nga xam ni mooy huitième jour bi ñépp préparé yonent bi ànd ak ñoom ba ñu jëm ci alxajjul akbar bu ñu waxee hajjul akbar mooy mawqifu arafaat loolu mooy aj moo tax képp ku aji boo tàrdee tardé nga waaye fekk taxaw nga arafaat rek aj nga moo tax yonent bi nee na alxajju arafa leneen loo deful woon ci aj mën na la bañ a yàqal mais boo ñëwee fekkee taxawaayu arafaat rek am nga aj bi mu ko defee saxaaba yi ñépp préparé ca taxawaayu Arafat boobu la yonent bi lancé message bi gën a rëy ci dundam nga xam ni message boobu bàyyiwul dara ci àdduna bi muy message boo xam ni message vivant la waxtu bu nekk message bi day bees nga xam ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy wax boroomam moo ko koy waxloo du wax rekk ci da koo neex mu wax ndax yàlla da ko bind bindee ko noo xam ni du deme nu ko neex in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax rekk dañ ko ko wax bi ñu demee ba arafa góor ñi génn jigéen ñi génn ñépp làmbaayu sol làmbaay yu weex tàll saxaaba yu mag yi ña njëkkoon a sos dugg ci diine teew nañ ñi mujj ci jamono bi teew nañ kibaaru saxaaba yi kenn mànkewul min baynihim abu bakar siddiq umar bnul xataab usmaan ali ñépp ñëw nañ jigéen ñi la même chose moom daal danga naan ñi ñëwul mooy ña woon waaye ñépp ñëw nañ bi mu ñëwee am na ñu mu fekk màkka ñi mu fekk màkka it profito ci ànd ak moom bi yonent bi ñëwee ba arafat war a nag joxe message bi nga xam ni danañ ca déggee lu bari xutbaam ba nekk xutba bu siiw muy discours bu siiw boo xam ni humanité bi tey bu ñu ko doon bàyyi xel jafe-jafe yi ñuy dund duñu ko am waaye dafa fekk nag àdduna bi tey ñiy dund ñekk jullit ñoom ñoo réeree message bi yonent bi jàngale su fekkee ni ñoom ñoo réere message bi yonent bi jàngale kon dañuy bëgg a mel ni ñi nekkul jullit jullit ñi tey suñu demee ba yërmande doxul ci seen diggante jàppalante doxul ci seen diggante ci biir ménage yi problème am kon jullit ñi ñoo bàyyi mission bi ñu leen joxoon waaye la yonant bi waxoon buñ ci jaaroon àdduna bi lépp ci jàmm lay tënku bokk na ci li yonant bi njëkkoon a joxe comme message mu ne ayuha nnaas inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka hurmati yowmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada muy premier chapitre discours bi yonent bi mu ne ay yéen nit ñi saxaaba yépp ñu ngi taxaw jàkkaarloog moom kenn bougé kenn yëngatuwut mu mel ni picc bu taxawoon ci bopp kenn ci ñoom picc bi du naaw lan moo tax ndax ki ñuy déglu daf koo jar te ku koy déglu say cër warte yëngu waxantumal ak sa làmmiñ ñépp ne tekk rajo amul comme nii micro amul haut amul kon ñépp dañuy déglu ngir dégg message yonent bi yàlla yónni yonent bi ne ay yéen nit ñi mooy woona nit ñépp ne bés ni ki tey maa ngi leen di waxal ne seen deret dafa xaraam ci seeni diggante seen alal dafa xaraam ci seen diggante jullit dafa war a sàmm deretu moroomam mooy góorgóorlul ba bu ko tuur kenn du tuur deretu jullit nit waruñu tuur deretam ndax deret dafa sacré daanaka mooy quatre vingt pour cent ci dund nit nit soo xësee ba génne deretam rekk mooy yërmande doxatul sa digg ak moom kon ni nga bañee sa deret tuuru sàmmalal nit deretam ba du tuuru kon kenn warul tuur deretu moroomam du buur du baadoolo du góor du jigéen kon nañu sàmm deret yi ndax dund nit da ko bëgg ne seen alal araam na ci seen diggante bu ne seen alal araam na mooy waruñoo lekk sunu alal ci naxante warumaa ñëw rek tëral samay projet rek jublu ci nax la ngir lekk li nga am ndax borom bi nee na wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil góorlu leen ba bu kenn lekk alalu moroomam ci ay nax lëre nit ki rek ñëw lekk xaalisam ñëw nax ko jël alalam xam nga fu mu ñuy jëmee su loolu amee rek daf ñuy jëmewaat ci tuur deret ndax su ma sàgganee ba nga nax ma jël sama alal su ma gàttee xel dinaa ñëw pour nangu si ko su ma ñëwee pour nangu si ko nga riposte mën nañoo xeex bu ñu xeexee deret mën naa tuuru kon liy sabab liy tuur deret nañu ko moytu tey bu ngeen seetloo àdduna bi li ko taal lépp alal la moo ko taal conflit yi ci àdduna bi pétrole la ak gaz pétrole ak gaz mooy bopp alal conflit état yi lépp alal moo ko lal kon alal il faut ñu gor a ci kenn ku nekk fexe li nga moom nga yem ca muy état yi ci kaw ba ci suuf nañu gore ci li ñu bokk kenn ku nekk am na lu la yàlla jox boo yemee ca la la yàlla jox doo dugg ci gàrdu keneen ba jafe-jafe di am kon alal jigéen jiy wujje na ko sàmm diggam ak wujjam waaye na ko sàmm diggam ak jëkkëram ndax lu yàqu alal moo ko yàq yonent bi nee ñaar yi ni mu araamee seen diggante muy tuur deretu nit tuur deretu nit bokk na ci jëw ko bokk na ci sosal ko bokk na ci yàq derem bokk na ci waxal ko lu nekkul ci moom soo ko defee respecté woo ko nit sax nag li jiitu ci sa dund ak moom soo gisee lu dul yoon ci moom nëbbal ko ko moo gën nga di ko siiwal kon jullit noonu lay dimbalee mu nekk message bu fort boo xam ni jàngat bi njëkk bi mooy bu ñu sàmmoon sunuy àq buur yem ci buur ñu delloo ko nguur baadoolo yem ci baadoolo ñépp danañu dund jàmm danañu dund salaam yonent bi sallallahu alayhi wa ne gis nga ni seen bisu tey bii amee orma bërëb bii am orma muy bisu tey bii am orma mooy bisu arafat nga xamante ni mooy bisu aj mooy ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada weer bi ngeen nekk di weeru aj nga xamante ni weer bu ñu ormal la ba xeex ci dafa xaram waaye ne fi baladikum haada dëkk bii nga xam ni dafa ormawu ba yàlla yëkkati ko muy wa haada al baladil amin kon ñetti borom orma yi war naa tax ngeen sàmm loolu mooy bis bii di bisu àjjuma nekk taxawaayu arafa waaye nekk ci bërëb bi ñu naan màkka kon mën ngeen a sàmm seen dret ak seen alal ma ne mbooloo yi dox ci àdduna bi yépp bu ñu jëloon première chapitre boobu entitré ko mu nekk ci seen kanamu lépp lu ñuy def mooy sàmmal sa àqu moroom ci alalam ci deram bu ñu ko defee rek jàmm day am kër yépp ay am jàmm bu kenn ko ne góorgóorloo ba sàmm alalu jàmbur rek fitna du daal di am mu ñëw ci deuxième chapitre bi ne ala wa inna kulla cheyin min amril jahiliya taxta qadami haatayn mawdu nee na la amoon démb ci jikkoy ceddo joggi naa ko tey aram na mooy lan ceddo yi nañu doon doxalee démb ci wàllu alal mooy leb bor intérêt comme ni mu xewee tey yonent bi nee na moytu leen ko ndax fitna rek lay indi su nit ñëwee leble dix mille francs nga ne ko onze mille nga may fay su ko jëlee ñàkk pexee tax su fay jotee mënula koo fay fitna dana am kon alal warul am ëpplante kon su fekkee da nga yore sa alal nga bëgg maa dimbale ma ñëw leb si la soo ma lebalee jàppal ni natt moo ma dal waaye su jotee ma nit naa gore ndax kiy yëkkati alalam jox la alal ni mu neexee yow yaa ko war a gën a gore ndax fi nga toll ba ñëw leb ñu lebal la wax dëgg yàlla boo amee war ngaa gore nga ñëw fay kon nag jikkoy jaahiliya mooy lan dërëm tànk bi daan am démb yonent bi ne ne dindi naa ko tey kenn dootu ko def bu kenn wax ni dama lay lebal cent franc nga fay eh, téeméer bu lebal na téeméer nga fay téeméer ak fukki dërëm wala téeméer loolu maa ngi koy bàyyiloo sama xel di ko bàyyiloo xel jigéen ñi microfinance yi financement yi ngeen di am ak yooyu yépp lii indi problème àdduna mooy dañoo sóorul yonent bi sóoruñu diine moo tax jafe-jafe yi am euh, yenn microfinance yi gars yi di organiser projet yi lu ci bëri mën nañ ci liggéey waaye nañu xool suñu diine nan lañu ko jàngalee bu nu xoolee ni ko suñu diine jàngalee mën nañoo dem te loolu day jëriñ ñi financer projet bi dana jëriñ ñi ñu ko financé démb maa ngi koy wax ci sama benn conférence te Jurbel dëkk bu sori di leen wax ne leen ni nañu moytu riba riba mooy bépp intérêt bu tege ci kaw alal xaalis du mag xaalis soo ma lebalee dix mille francs CFA amoo droit ma fay la dix mille cinq cent CFA warul nekk loolu xaraam na ittifaaqan mënul dagan ci islaam su leen neexee na ci àdduna ngeen def ku ko def ci àdduna it yaa xam yàlla daal nee ku ko def danaa xeex ak yow waaw yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla nee na riba ku ko def ma attaqué la te man ak sama yonent ñoo lay attaqué lii riba nag boo ma lebalee teg ci dafa xaram waaye bu fekkee li nga ma lebal mën nga ma lebal jox ma matériel su boobaa prix bi mën na ëpp par exemple financé nañ leen un million jigéen ñi bëgg a liggéey ndax soxla nañ ko ñu ne jigéen bu nekk war na am cinquante mille un million bu ñu jëlee ku nekk cinquante mille peut-être dinañ ci am vingt jigéen wala lu ko ëpp léegi vingt jigéen ñu ko nekk cinquante mille lañ la war a financer léegi nag ñu ne waaw xaalis baa ngi mais du ñu joxe liquidité du ñu ko joxe ndax liquidité bu ñu ko joxee lu mu jur day xaram léegi lan la ñuy joxe li ñuy joxe mooy benn faatu jéeju day ñëw looy jaay mu ne man bisaab laay jaay keccax soble waaw ñu ne kon nañu ànd marché. ñu ànd marché jëndal ko li mu soxla ci cinquante mille valeur cinquante mille boobu ne nag boo jaayee ba pare sa bénéfice war nga ñoo fay cinquante et un mille kon ñun lebaluñ ko xaalis mais li ñu ko lebal mooy matériel matériel bi ñu ko lebal su jaayee am nañu droit ñu teg ci loolu dana dagan te incha allah liggéey bi day barkeel loolu façon boobu la ñu yàlla wax nañuy doxalee noonu kii liggéeyam mooy lee lay def ñu utal ko matériel bi noonu la banque islamique yi di doxee su ko defee dina ñu joxe ñun matériel nit ki ñëw fay ñu xaalis mu ëpp mais su ma la joxee cinquante mille amuñ droit teg ci benn benn benn xaalis ndax xaalis du mag moroom ma kon yonent bi loolu la ñuy moytuloo feeg loolu amul danañu dund ci paix ak stabilité mais bu ñu demee ba bëgg a dund ci nag bu ma la lebalee fukk nga fay ma fukk ak juróom mais su ma nangoo jël te aw ma fukk ak juróom li muy indi mooy damay daw dama lay làqatu fitna lay indi bés jot ñu taxaw tribunal moo tax dossiers yi ci tribunal ci problème financement yi kenn xamut ni mu toll ñaata projet la ñu financé ay nit mu naax saay parce que fa ñu waroon a jaar jaaruñ fa bi ko yonent bi teree li mu tere ci famem la jiitu ndax ki ko doon def bàyyi la ci moom muy abbas moo tax mu ne abbas riba ba mu doon def jot gi naa ci tere nañ ko tey pourtant yonent bi bu doon buuru àdduna du ko def buuru àdduna kenn du fekk sa rakk di def lu dul noonu nga dindi ko mais da nga koy bàyyi parce que yaa yore nguur gi mais lii diine la diine lu ki la jege ki la jegewul ñoo yam ñépp ñoo ci yem même pied d'égalité mbokk yi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu daa di ñëw ci troisième chapitre bi troisième chapitre bi mooy fattaqu llaha fi nnisaa fa innakum axadtumuhunna bi amaanatillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah wa inna lakum alayhinna an laa yuti'na furushakum ahadan takrahuuna fa in faalna dalika fadribuhunna darban gayra mubarrah wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaaruf yonent bi sallallahu wa sallam bi ma di wax yéen jullit ñi ñépp teew mu ne ragal leen yàlla yéen góor ñi ci jigéen li muy wane mooy jigéen dafa néew pexe dafa néew doole kon bépp góor bu yore soxna ragalal yàlla ci sa soxna soxna kenn du ko yore ci aada kenn du ko yore ci cosaan ci diine lañ koy yore ndax aada du maye jabar mu dagan cosaan du maye jabar mu dagan kon yonent bi nee na fattaqullaha fi nisaa yéen góor ñi ragal leen yàlla ci jigéen ñi lan moo tax jigéen ji dafa judd ci kër am rakk am mag nekk ci kër gi dem ba am dix-huit ans rakkam mi ngi ci kër gi am quinze ans di góor ñu ñëw ñu ne ko yow dañu lay may diw mu yóbbu la moom sa lépp kooku nga yóbbu sa kër muy wuyoo sa sant ñu naan madame Sané wala madame Badji te pourtant am na sant lan moo tax delloo wuñ ko santam parce que respect ak yàlla moo ñu ko defal muy teraanga mais góor bu ñu may jabar war nga ragal yàlla ci loolu parce que nag sa jabar bu fekkee day wuyoo sa tur soo nee defal mu def su bëggee dem nga ne ko bul dem mu toog kooku ragal yàlla moo la mën a dimbale ci moom mais boo bëggee doxalee doxalinu gangster ay jaay doole mam laa ko war a def comme ni muy xewee looloo indi fitna yi kon sëy du doole du cosaan mais ci diine respe mooy doxal sëy kon yonent bi ne ragal leen yàlla ci seeni jabar ñu ne waaw mu ne xam ngeen lu tax ngeen am jigéen ñi ñu ne déedéet mu ne fa innakum axastumuhunna bi amaanatillah nee na ndimbalal yàlla ak kóllëreem loolu dong nga tax nga mën a jël jigéen waaye jigéen ak góor gënantewuñ boo ñëwee ci kër ñu may la jigéen mayuñ la góor balaa nga koo xam rek ñëwal ci paa bi paa Kóole ngi toog nga ne ko dama bëgg nga may ma Ibrahima Kóoli daan naan yow xanaa dangaa dof eh, kii waa yow na maa ngi lay kii mbaa mu yóbbu la police mais boo ñëwee ne ko Fatima Kóoli laa bëgg mu woo faate ma bugg nga mu ne waaw mu mayee lan moo tax mu mayee Fatima Kóoli bàyyi Ibrahima Kóoli pourtant Ibrahima Kóoli gënul Fatima Kóoli mais secret bu yàlla def nee na loolu yow góor bi ci nga war a xool mooy xoolal kii nga xam ni bu ñëwul sa kër sa kër yàqu ndax loo bari bëri alal boo amul jabar tekki woo dara xool leen borom alal yi fanaan ci hôtel yi xam naa ci ñoo xam ne ñaar lañu ma xam alal ju bari lañu am mais lu muy tekki ci ñoom loo bari le bëri le boo amul jabar bokkoo loo am am teraanga boo amoo jabar bokkoo kon xoolal ki yëkkati doomam jox la ko yàlla nee na li tax ko li mii dagan ci yow nga mun koo teg loxo kenn du wax dara mu ñëw ne ne man maay madam nangam ngeen nekk ci seen néeg rido wàcc yoonu kenn nekku ci fitna amul loolu war naa tax nga gore bu fekkoon ni ñëw nga ci kër gi jël koo takkul waxuma la balaa ngaa dugg ci biir nga joteeg papaam ak yaayam kon li tax lii dagan yàlla nee na man maa tax mu dagan kon jox leen ma respe ci seen jabar yi kon yàlla dafa bëgg ñu jox ko respect waaye ci sunu soxna yi ñun nag malheureusement lu bari dañuy bëgg sëyee doole sëyee aada non ma dafa war a def dafa war a nangam naam waaye nag nit la jox ko wàccuwaayu nit bu ko exclure ci kër gi yaag moom yéen a bokk ndax walla wala hunna rizquhunna bil maaruf yàlla nee na jigéen ñi dañoo am seeni droit comme bi ngeen am ci njekk ci kër gi kon comme dañu leen a am ci kóllëre gi yàlla bu mu ñu defal yàlla nee na ma daganal leen ci yéen su ma neexoon du dagan mais yàlla jël jigéen ji mu dagan ci yow ah kon nag ragal leen yàlla ci seen jabar yi nga dellu ci yonant bi nga jàng dundam ak ay soxnaam nga xool yonent bi ku mënoon jigéen la ku respecté woon jigéen la ku bëggoon jigéen la dafa daal wax ni xubbiba ilayya min dunyaakum salaas yonent bi nee na àdduna ñett laa gën a bëgg ci àdduna ñett laa gën a bëgg ñu ne ko ban ak ban mu ne an nisa man dama bëgg jigéen ñi moo tax jigéen ñi amuñu fay bu ñu fay yonent bi lu dul topp ko déggal ko yonent bi nee na jigéen ñi la gën a bëgg ñu ne ko ah mu ne wa tiib ak parfum fu mu toll day sotti koo parfum mu ne wa juxilat qurratu ayni fi salaat julli moom duma ko tollaleek dara kon ñett la yonent bi gën a bëgg jigéen da caa bokk waaye nag nee na ragal leen yàlla ci jigéen ñi mu wax droit jigéen ñi wax droit góor ñi suñu ko comprendre rek sëy yépp day neex ñu ne ko waaw lan mooy droit góor ñi ci jigéen ñi mu ne allah yuuti furu furushakum ahadan takrahuna yow jigéen bii sëy amal respect ci sa borom kër ba li muy bañ nga def ko bu ko def ndax nag dañu la ko may mu nekk sa kilifa tey droit bi mu am ci yow sa papa bi la jur amu ko yëgal ni yow jigéen bi sa papa bi mu la mayee la ay droit am jeex ñun nag dañuy fàtte loolu ndax aada li tax ay droit am jeex waaw boo ñëwoon ci nit ne ko may ma montre bi mu may la ko est-ce que amati na droit contrôler montre bi ah amatee na droit may la ko ba pare naan ko dee ko takkee main gauche bu ko takkee main droite lu ci yoonam da nga ko naan féet si da may sa yoon newutu ci mais kon pour pourquoi nga may nit ki jabar ba pare bu koo contrôler loolu aadala du diine du diine nañu ko bàyyi islam da koo tere yow yaa maye maye nga sa jàkki ba nga mayee sa doom nag xëy na boo gisee lu dul noonu am nga droit nga wax ndax kenn du la ci génne waaye nag munoo ne yaay pàppam rek loo bëgg mooy am pare nga ci jeexal nga ci tey li la koy wan mooy yow mi jur tey nga maye soo soxlaa jëkkëram soxla islaam nee na ko bu sa jëkkër mooy priorité waaw sa papa soxla sa jëkkër soxla islaam nee na baal sa bosu papa ndax dalaa maye comme moo la maye ki ñu la may moo am droit ci yow mais sa papa amatul droit ci yow soo toogee yàlla dina yërëm sa jëkkër soo demee di am bàkkaar kon comme dañu laa maye yow jigéen bi respect boobu jox ko sa borom kër à cent pour cent bu ko ko jox nag en tant que nit mais jox ko ko en tant que ndigalu yàlla parce que li ngay def ci moom jaamu yàlla lay doon mooy bépp jigéen bu déggal jëkkëram day dem àjjana benn sahaabiya dafa ñëw ci yonante bi muy bàjjanu imran ibn husayn yonante bi ne ko am nga borom kër mu ne ko waaw yonante bi ne ko unduri na anti minhu fa innahu jannatuki aw naaru ne ko am nga boroom kër mu ne ko waaw yonent bi ne ah <laughs> xoolal sa bopp de sa jëkkër mooy sa àjjana mooy sa sawara moom la paasoo sa yi naxee soxna yi nag ñu baal ma waaw ile aljana caaboo bantale buloo xaw ma waaw ngay dégg ah maa ngi ko déggee séeju de <laughs> séeju laa ko déggee di tooñ paay ba ma leen yéen da di nax jigéen ñi rek waaw jigéen ñee nekk ci faro yi ci tool yi liggéey yow liggéeyoo nga bëgg mu ñëw jox la nga naan ko maa yore sa caabi àjjana boo ko yoree damm ko waaw yow góor gi yaa war a liggéey jox sa jabar mais mais bu ko nax is islaam waxut loolu de islaam bu ne bu ne góor góor mooy caabi àjjana jigéen ci lan ci jaamu yàlla mooy jigéen bi na respecté jëkkëram ndax li yàlla sant jigéen bariwul jullil wooral sàmmal sa bopp dégg sa ndigalu jëkkër dem àjjana ñeent yi dong la julli woor sàmm sa bopp ba doo njaaloo dégg sa ndigalu jëkkër yàlla nee na nañ ko ubbil juróom-ñaari buntu àjjana yi bu ko neex na dugg mais loolu yomb na waaye nag yonent bi nee na wa qalilun na man yafaluhu nee na lu néew ci jigéen ñi ñoo koy def ndax mën nañ koo def léegi mer léegi yàq ko léegi waaw léegi loolu moom ñoom rek ñoo ci aay moom waaw mën nañoo baax léegi ba nga ne maa fi gën jagar ñu bon léegi ba nga ne musul baax waaw loolu moo tax wa qalilun min hunna man yafalu mu ne bokk na ci yéen jigéen ñi seen àqu jëkkër mooy sa néegu jëkkër bu fa kenn dugg lu dul ci ndigalam walla ku fay dugg na fekk mu neex sa borom kër mu neex xoolal euh, Ramla bint Abi Sufyaan nga xam ni soxna yonant bi la abu sufiyaan duggagul ci islaam ñëw madina seet si doomam bi mu ñëwee doom ji génn ci biti dalal ko ci biti mu ne ko ah man may sa baay nga war maa dugal sa néegu biir mu ne ko papa déedéet fii néegu yonant bi la doo fi dugg waaw papa papa ji mer mer ba sonn mais loolu la sa borom kër lu xam nga islaam lu mu bëgg bëggul couple boo xamante ni day daal di am sous-entendu wala kii di am ñaaw njort jigéen warul créer ñaaw njort ci kanamu jëkkëram waroo ko créer gis nga ñaaw njort ci la seytaane jaar yow xam nga ni sa borom kër peut-être moo kii neexoowuñu bu ko entrer sa néeg te entrer nañ sa biir néeg lii danger bi dafa mën a indi fitna yu bari kon na jigéen bi sàmm loolu bul tax mukk sa jëkkër ñaaw njort ci yow su ñaawee njort ci yow rek mooy sëy bi ci problème la jëm parce que xelam dootul dal nag fiir diine la du ñàkk fayda de diine la nit day fiir xanaa am ci xel ci jigéen ak góor nee na bokk na ci sa jabar bu la respecté ba pare ñu ne waaw yonent bi mu ne ah dundam nag yow góor yow la war na wa na bil ma'ruf sa jabar lekkam naanam dëkkuwaayam dundam yow la war bil maaruuf yi nag mooy ci li nga àttan te mu jekk bil maaruuf kenn du wax ni lii nga war a jox jigéen bi waaye li nga mën xoolal li nga ko mën a jox mu dëppook lu jamono nangu xam nga buñ ne li nga ko mën a jox sa jabar bu ne dafa bëgg a jënd yére nga ñëw jox ko 5000 francs mën na cee am yére mais du yére bi gën kon islaam du la wax loolu dale na bil maaruuf jox ko loo xam ni mën na cee jënd yére bu mu mën a taxawee ci ay kanamu moroomam kon loolu mooy bil maaruf loolu nag yow góor gi dalaa war sa lekku jabar sa naanu jabar dëkkuwaayam ak dundam yow la war soo ko amee dee ko def soo ko amul del neexal ku amul day neex deret waaye amoo ba pare bëgg a jaay doole nag mënta sotti waaw comme amuloo nag bu ñu waxee rek nee ko yàlla baax na yàlla na yàlla dimbale waaw waaye jabar ji nekk wallaay da ngay gis jigéen ñu bari seen valise la fa nekk lépp ñoo ko jënd d'accord gis nga bi nga ko jëndee yow jigéen ji gërëmal sa jëkkër xam nga lu tax bu la seetaanoon doo liggéey ba nga jënd ko kon def na benn approche bu am solo mooy bàyyi na la nga liggéey yow it xamal teraanga boobu waaye ñu bàyyi la ngay liggéey ba pare nga bëgg a yëkkati mbagg nag ñaari baat nga ne hélas moom du def dara tëdd rek kon loolu tamit yow it am ci teraanga nga am ci respect parce que wërsëg tolloowul comme wërsëg tolloowul te yow miy jigéen da nga a am ay doom ëllëg te gis nga jigéen ak góor bu ñu bokkee doom góoray perte amul benn góor bu am teraanga ci doomam <laughs> loolu la yàlla nattoo góor ñi ñun li ngi nii ku ci màgg ba commencé liggéey sa yaay mooy sa xarit gis nga yàlla ni mu inversé mbir yi mooy boo amee gis nga boo amee ñaari doom jigéen ak góor doom bu jigéen bi papa lay gën a jege doom bu góor bi yaay lay gën a jege loolu moo lay wan ni yaay mooy ëpp chance doom ndax doom bu góor bi li mu liggéey confidence yaayam lay nekk yaayam lay waxal moom lay defal lépp léeg-léeg nga gis yenn paa yoo xam ne dañ naan man sama doom du wax ak man du ma faale boo ko waxee man la non àdduna mooy doxee noonu yow bi nga ci tollee sa yaay nga daan waxal kon loolu jarul mer comme mi ngi wax ak yaayam kay amul problème yow fexeel ba ndax yaayam rek lu mu wax yaayam yaayam wax la mu jeex boo ko defee rek incha allah kër gi normal kon ne su ngeen defee loolu. su la jigéen ji respecté dégg sa ndigal toppatoo la yonent bi nee na ragalal yàlla ci moom nga xam ni mayuñ la bant bu ñu sànni mais nit lañ la jox ki war a nekk sa yaayu doom kooku da ko war a gëm-gëm bu tolloog sa ndeyjoor waaw da ko war a toll koo xam ni hé islam teraanga yim la defal daa bari xamul tax mu bari mooy yàlla jox na la koo xam ni tey moo lay wéttali xam nga jigéen day am wéttal mais góor day am wéttal day am wéttal yow rek boo fi tëddee balaa un mois léegi nga xam ni tëddaayu góor kese neexut waaw léegi nga xam ko jigéen ji it noonu kon bu la yàlla boole koo xam ni mooy sa soxna nekk ci sa wet soo jaaxlee mu taxaw nekk gardien sa kër nag li ci gën a neex quatre di du matin nga génn kër gi liggéey moom mu toog demul sàmm say doom sang leen toppatoo leen toggal leen solal leen yére fóotal leen lépp ndaw si di ko def yow ngay xëy di ñëw foo toll war nga koy ñaanal yàlla waaw ndax nag boo nekkee jàmbaar ci biti mooy jàmbaar ci biir ku jàmbaar ci biti feeñ rek ki ci biir a tax waaye boo nekkee ca biti di jàmbaar moom mu toog nekk fu yaafuus loo liggéey dana yàqu kon am nga ku taxaw sa wet loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne góor ñi nanu bàyyi xel jigéen ñi bu ñu bàyyee xel jigéen ñi rek incha allah yëf yi dafay daal di dem beneen bi nee na bokk na ci it respect biy dox seen diggante ak seeni soxna mooy soxna yi bu ñu génn te tàggoowuñu dëgg-dëgg sa jëkkër nag lu mu la jege jege jege lu mu la bëgg bëgg bëgg loo ko yab yab yab du moom mais yàlla ngay xool balaa ngaa dem tàggu ko waxtaan parce que xam nga tax boo ko tàgguwul boo génnee bàkkaar ngay am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayyama mraatin xarajat laanatha al malaayika xatta tarja nee na bépp jigéen bu génn këram te tàgguwul borom këram malaaka yi ñu ngi lay rëbb ba nga ñibbisi yàlla diw yàlla na alku génn na tàggoowut yàlla kiy jaarul ci yoon imagine lu mel noonu yow jigéen nga génn sa kër moo xam dangaa mere sa borom kër wala sa borom kër génn woo ko ba mu jox la ndigal nga génn lu la fa dal fitna am na maa ngi ciy nettali benn xissa benn waaye boo xam ni dafa xëy fi muy liggéeyee rek ay 10 heures ñu woo ko ne ko sa jabar dafa accidenté mu ne sama jabar ñu ne am ah, ne non non man sama jabar sama kër laa ko bàyyi ñu ne ko ci yoonu kees bi la accidenté mu ne déedéet beneen jigéen la du sama jabar gaa yi wax wax mu ne du sama jabar dem dem ba information bi leer ni jabaram la mu ñëw ne la non man du sama jabar sama jabar tàgguwuma jox ndek xoolal ndaw si xaritam moo ñëw ne ko dama bëgg nga gunge ma ñu def benn flash daw te ñëw fi muy defee flash ndeke fa lay dee loolu lan moo ko waaw dafa accidenté dee jëkkër ji ñu wax wax mu ne sama jabar deewul parce que tàgguwuma bàyyiwuma ko demul kon loolu moytu ko mooy ndeke nit dina dee am bàkkaar bu ko yóbbu safara kenn ci ñun xamu ko nañu ñaan nañu jàng kaamil mais dafa violer ay loi kon loolu balaa ngay def dara tàggoon te gis nga tàggoo olof nee na jigéen bu ko mënul mënta sëy tàggoo moo gën a yomb ci jigéen góor kay la tàggoo jafe yow xam nga sa waay dafa tàng deret xam nga fi nga koy jaar ku nekk ci yéen xam na fi ngay jaar sa bu fekkee boo tàggoo mu bañ yére yi am na ci boo xam ne boo ko solee dalay xool rek waaw ah solal boobu rek commencé di ko romb gauche droite rek toog rek këj di ko seetaan bu yàggee mu ne la waa mais lan moo xew man ko dama mariage dama bëgg a dem mariage non yow dem bi daa bëri nga teg ko loxo waaye nijaay yow xam nga naxanteeg moom bu yàggee mu ne la demal kon am na loo xam ni mën nga koo am mais bul nangu seytaane dox sa digganteeg sa jabar seytaane ni muy doxee sa digganteek sa jëkkër mooy gënu la bépp jigéen buy séyee loolu doo jur doom bu baax toujours jàppal ni sa jëkkër moo la gën bu ko jàpp nag ci en tant que nii ni koy jàppee nii mais diine mooy tax ndax sang la yàlla moo ko def sang góor ñi yàlla moo leen def sang ñun defuñ ko yàllaa ko def te loolu alquran moo ñu ko wax gis nga yuusuf bi ko jabaru buur bi toppee yuusuf daw bay génn jëkkëru ndaw si agsi yàlla dafa ne fa alfa yaa la dal baab waaw daje na ak sangam kon góor sang la yow li tax nga war a jàpp ne sa jëkkër mooy sa sang du pour yow mais danga bëgg say doom nekk sang ëllëg mais boo respecté wul loolu chaîne la càq la per bu wadd beneen topp ci boo respecté wul sa bàyyi doom sa doom jabaram du ko respecté noonu rek mooy continuer kon lu mel noonu yonent bi moom lañuy ñaax pour ñu bàyyi ko xel yonant bi bi mu nekkee ci xutba bi di wax ba ci yàgg rek la am benn euh, aaya bu wàcc muy al ak akmaltu lakum diinakum mooy bés ni ki tey matalal naa leen seen diine gërëm naa islaam muy seen diine mbokk yi yonent bi aj aj bi jeex ñu daldi tàggatoo ñibbi bi ñu ñibbee diggante aj bi ak bi yonent bi di gaañu quatre-vingt-un jours la diggante ajam ak bi muy gaañu quatre-vingt-un jours la aj bi jeex na ñibbisi na saxaaba yi ñibbi nañ kenn ku nekk ñii fekki nañ ko yonent bi ñëw Madina bi mu ñëwee Madina 17 jours lañ ci teg 17 jours lañ ci teg ya Aïcha radiyallahu anha keroog moom moo aye yonent baa ngi nekk néegam yaay sa boppam di metti mu jël musóoram takk ci bopp bi ba mu dëgër tëdd yonent baa ngi toog di xaar julli gee rek ya Aïcha ni waa ra ay waay sama bopp a ngi metti yonent bi ne ko bal ana waa rasa ne ko sa bopp a ngi metti mais maa la gën a metti bopp waaw maa la gën a metti bopp dafa fekk ni jigéen mënta muñ rek wax loolu yaa Aysa bi mu waxee loolu ñu julli gee bi ñu jullee gee ba pare yaay Aysa dugg ci néeg bi yonent bi ñaanal ko ci bopp bi moom mi ngi ñaanal ay sa fekk moo ko gën a metti bopp boobu bopp bi commencé na metti yonant bi bàyyi ba guddi gi xaw a soppiku mu génn bi mu génnee dajeek benn xalem bu ñuy wax abu mu muwayhib ne ko kaay nga gunge ma ñu dem baqi ma ziyaare leen masjidu yonant bi ak armeel bi sorewuñ ku mu sa aji di nga xam loolu da doon toog nii ci jàkkaam di seen armeel yi mu ne abu muwayhib mu ne naa mu ne ko kaay gunge ma mu gunge ko yonent bi ñëw ba ci baqi ne salaamu aleykum ahla diyaar yéen waa kër gi maa ngi leen di nuyu muy ñi nekk ci armeel yi ne leen yéen dey yéen a ngi ci jàmm waaye fitna yaa ngi ñëw ci ñuy dund ci kaw suuf te fitna yi day tegloo comme guddi guy topp moroom ma imagineel jamono bi loo dégg tey suba nga dégg lu ko gën a grave noonu lay tegloo yonent bi neen day mel ni càqu jigéen bu dagg ratatatatat noonu lay def fitna ci kaw fitna conflit ci kaw conflit kaso ci kaw kaso musiba ci kaw musiba tas ci kaw tas àdduna bi léegi dafa mel ni nit ñi dañoo soppiku nekk ay animaux animo yi tane leen léegi amatul tolérance zéro ngay dégg tolerance zéro daf ma sabañ ma sabañ ko ko ku ma ko dëbb man di mbax la ko rek ngay dégg amul baal amul yërmal amul dara góor du yërëm jabaram jigéen du déggal jëkkëram fitna day am fitna boobu nag moo wax nee na ñu ngi ciy dund waaye nag àdduna ak allaaxira maa ngi leen di wax ne allaaxira gën àdduna wal aaxiratu xayrun wa abqa ñaanal leen ne leen yal na yàlla yërëm leen yal yàlla jéggal leen yal yàlla xaar leen àjjana ñaan ñaan abu muwayhib nee na keroog bi yonent bi ñaan maa ngi kontaan banaan ak a neexoon ma bokk ci néew yi tëdd fii ndax yonent bi ñaan ñaan ñaan ñaan ndeke yoo yonant bi day tàggatoog néew yi mu leen tàgg ba pare ñibbi si këram bi mu ñëw ñibbisee këram toog trois jours am saar bu wàcc muy iza jaa nasrullahi wal fath bi saar bi wàcce yonent bi ne innahu nuiyat alayya nafsi bi hadihi suura ah man dey daa mel ni tàgge nañ ma sama bopp ci saar bi abu bakar jóg mu jóge ne ko fidaaka abi ya rasulallah yonent bi li muy wax ne gaa ñi am na jaam bu yàlla tànnloo ci mu ñëw fekk ko mu yóbbu ko àjjana walla mu des ci àdduna waaye jaam bi dafa tànn dem àjjana abu bakar ndeke moo comprendre message bi abu aboubacar bi mu waxee la saxaaba yi la waaye aboubacar lu muy def nii kii li yonent bi wax nee na ku yàlla tànnloo moo ndekkee aboubacar xam na ni yonent bi boppam lay wax sallallahu alayhi nekk ci kër gi ba ci yàgg nag léegi lu mu daan def lu gaaw defatu ko mu gaaw bu duy dox léegi ndànk lay dox fu mu toll rek mu ngi naan alhamdulilahi rabbil alamin allahumma xfir li zunubi noonu la yonent bi nekkee ba ci yàgg soxnaam ne ko waaw léegi day maa ngi lay gis ngay wax baat boo daawul wax mu ne ko lan mu ne ko léegi foo toll yaa ngi sàbbaal di jéggulu yàlla mu ne ko sama boroom noon na ma saa bu saar bi wàcce mooy sa dig jot na waajal danga ma wuy ji loolu moo tax may jéggul fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba ne loolu bi ko yonent bi waxee nee ñu dem nag ay fan ñu demee ay fan xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar bi ko jàpp yàggoon na dafa am benn poson buñ ko joxoon ci xaybar benn jigéenu juif moo doon wax ne comme nee nañu yonent la dinaa ci xam dara su dee yonent bu lekkee poson bii du dee su fekkee ni du yonent bu ko lekkee dee ñépp noppalu loolu moo tax mu posone tànku bëy ba bi ñu ñëwee nit ñiy lekk far yàpp bi ne yonente bu ma lekk dañ ma posone yonente bi ne saxaaba yi bu leen lekk mais comme am na lu mu ci jot a lekk nee na loolu métit boobu moo ko jàpp moo tax bi mu feebaree ñu laaj ko li mu wax mooy sama feebar bi ci posonu gi yàpp ba ma lekkoon ci la ma dalee mbokk yi xam ngeen ni deewu yonente bi sallallahu alayhi wa musiba gënu koo rëy ci musiba yi dal nit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne yéen samay saxaaba amul benn musiba bu gën a metti sama dee ci yéen moo tax koo munti dee la lu mu metti metti metti na waaye mënta metti ba dab gaañu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax beneen bu ñëw rekk war nga koo mën a muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam onze jours la feebar feebar bi sibburu la day jékki yaram bi di ñaq bopp bi di metti xam ngeen ni alquran wax na ni yonent bi innaka mayyitun wa innahum mayyitun de quoi ah, bis dana ñëw moom danga dee ñoom danañu dee kon nag ku yebu xam ni ñun ñii it danañu dee ñun ñii fi nekk kenn ku nekk am na koo suul ñii seen papa ñii seen yaay ñii seen bàjjen kon war nañoo yëg ni muaz ibnu jabal yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dajeeg moom ne ko yaa muaz innaka asa an laa talqaani baada aami haada laallaka tamurru bi masjidi haada aw qabri keroog muaz dafa jooy ba jooyloo saxaaba yu bari yonent bi dajeeg muaz ibnu jabal teg loxoom ci mbaggam yonent bi dafa bëggoon saxaaba yi wa ma adraka ma yowmul xamis yowmun zaara almaradu fihi rasulullah ne céy bisu alxamis duma ko fàtte mukk ñu ne ibnu abbas lan moo nekk ci bisu alxamis mu ne bisu alxamis la feebar bi dugg yonent bi sallallahu alayhi wa alxamis ci tàkkusaan la yonent bi sallallahu alayhi feebar mbokk yi feebar boobu nag bàyyiwul yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi yonent bi feebar na alxamis mi ngi ñëw di julli ak ajjuma moo jiite juma mu ngi ñëw di julli samedi feebar bi sonal ko bi ko feebar bi sonalee am ci saxaaba yi ñu ñëw seetsi ko bokk na ci ki ko seet si abdullah ibnu umar bi mu ñëwee yonent bi ñaanal ko mu jóg dem bi mu jógee dem altine abu bakar waroon a dem aye ci soxnaam ba ca aaliya ca gannaaw ma diina abu bakar ne mënumaa dem bàyyi yonent bi sallallahu alayhi di dem ji aye ji duma ko def abu bakar toog bi mu toogee altine boobu yonent bi feebar bi sonal na ko waaye teewul li mu feebar feebar mi ngi jox ay soxna yi te xam ngeen ni fukki soxna ak benn la am onze soxna la ko yàlla may dagan na ci moom mais ku dul moom xaram na ci yow ku dul yonent bi amoo droit romb quatre jabar boo ko rombee quatrième bi cinquième bi du jabar ak koo munti doon nag boo ko rombee fokkat nga dong waaw kon kenn amul droit takk de delà de quatre femmes dafa xaram ci diine yàlla bi bi mu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a dem aye ci benn soxnaam léegi nan lañuy ñuy def dañuy xusam ibnu abbas ak fadl ibnu abbas ñooy ñëw lëng yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko lëngee diiri ko ba ci néegu soxna bi aye mu tëdd foofu soxna yépp ñëw dajaloo foofu di waxtaan ba tëdd jot ñu dem tëddi bàyyi ki aye ak moom xool yonent bi feebar na gore ndeysaan feebar na di joxe ay ndax xam na ni ay kenn du ko fooye parce que bépp góor buy fooyee ay yowmal xiyaam boo dekkee da ngay paralysé góor boo gis yowmal xiyaam muy dox côté bii rek xamal ni daa jéng ci ay jabaram kon yéen jigéen ñi kontaan leen <laughs> ah waaw waaw bépp góor bu dekk yowmal xiyaam di doxee côté rek xamal ni moom dafay bàyyi faatu saane dem ci ay dëkkuli waaw te loolu dafa xaram ayu jàmbur kenn waru koo sàcc kenn góor góor góor warul sàcc ay ay nag waxtaan ba juboo la mën na nekk ñaar-ñaar ñetti ñett benn-benn ay li nga waxtaan ak say soxna rek mais ay amul aada léeg nga dégg ko naan ñaari fan mooy aada loolu aada la mais boo amee say jabar bu la neexee nga ne ku nekk benn fan nga waxtaan ceeg ñoom ku nekk ñetti fan li ngeen xës ba dëppoo amoo droit nga teggi ko amul it nag dama aye mais vraiment comme que temps yi julliwul moo tax ma dem fee uh-uh. loolu amut de <laughs> loolu amut li ma sama góor gi waxoon man samay soxna ku aye mais nag ku nekk jigéen rek doo aye ma ah, loolu du diine de xanaa waxtaan ba dëppook ñoom rek waa waxtaan ba dëppook ñoom yonent bi yàlla yoon ni moo ñu gën lu ñu wax ci moom du nekk ñàkk teggin boo ko waxee ci keneen muy ñàkk teggin mais yaa ay nee na yonent bi sallallahu alayhi doon na aye kenn ci ñun mu gis li jigéen di gis mu mu defaru ba mu jekk mu séq ak moom lu muy séq ak moom ba mu def sëy yu dëgg mais loolu mooy maandu loolu mooy maandu kon lépp luy am ci biir kër gi nanu koy waxtaane nanu koy waxtaane mbokk yi noonu la yonent bi def ba mu gi nag affaire bi commencé metti ndax dem na ba léegi bu ñu koy yëkkatee di ko yóbbu tànk yi du dox day direeku day direeku jigéen ñi di xool ba ci yàgg nag ñu naa ah, lii nag ëpp na lii ëpp na nañ leen ñëw ñu wax ak moom jigéen ñi ñëw toog ak moom ne ko xam nañ ni feebar bi metti na waaye gore nga ci dund ba feebar gore ñun ñépp ànd nañ ci benn kàddu jël suñu ay jox ko yaa Aysa mu tëdd foofu sa néeg nekk fe fe nga feebaram yonent bi ne ne ah yéen a ko wax jigéen ñi ne ko waaw loolu moo ko bàyyi néegu yaa Aïcha léegi nag ñoom ci la ñuy ñëw xam nga yaa Aïcha kii mu gënoon a jubal ci soxna yonent bi moom mooy Xafsa doomu Umar ibnu Xattaab ñoom ñaar dañoo meloon nii ñoom ñaar ñoo gënoon a séq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem nag ba samdi feebar bi metti lool samdi boobu la yonent bi njëkk xëm li mu feebar yépp mooy jiite julli dem na ba ci yàgg rek mu ne saxaaba yi biñ jullee ba pare mu ne leen yëkkati leen ma ñu yëkkati ko mu ne teg leen ma ci mihrab bi ñu yëkkati ko teg ko ci mihrab bi munul taxaw mu taxaw ba ci yàgg bay bëgg a daanu tegaat loxo mu bés ñu téye ko mu wàcc ba toog bi mu toogee ci la waar saxaabatul kiram waar leen waar bu daw yaram ne leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi dénk muhajirin nañu ragal yàlla ci waa lansaar waa lansaar nañu ragal yàlla ci muhajirun na ngeen xam ni àdduna du kër ku fi ut kërit danga ko perte xam leen ni àdduna këru pertement la wal asri inna al insaana la fi xusra wax ba ci yàgg ne innahu lam yuqbad nabiyun qattu xatta yara maqadahu min al janna nee na yonent du dee mukk lu dul ñu wan ko këram ci ajjana loolu la yàlla def ba càgg ne allahuma rafiq al ala yàlla maa ngi lay ñaan nga nekk sama àndaale yonent bi bi mu waxee nag waaraate ba pare ci la wax nan magi ansaar di yërëm ndawi ansaar magi na ñuy yërëm ndawi muhajirun maa ngi leen di dénk ngeen dimbalante ngeen jàppalante ba ci yàgg nag mu ne ku ma tooñoon ci yéen na ñëw fayyu ku ma mësa wax lu ñaaw ñëwal nga fayyu ku ma mësa a def lu ñaaw ñëwal nga fayyu ku ma mës dóor ñëwal nga fayyu nga xare benn saxaaba jóg ne ko mus nga maa dóor gaa yépp xool ko yonent bi ne ko mus naa la dóor mu ne ko waaw mu ne ko kaay nga fayyu saxaaba bi jóg di romb sàppe yi ñenn ñaa ngi koy xool armé wu bu loxoom di jóg jëm ci yonent bi rek keroog ñu def ko musiba ndeke moom politik la doon def ne yonent bi dóor nga ma yonent bi bàyyi ba mu ñëw mu ne yonent bi yonent bi ne ko fu ma la dóoroon mu ne ko ci ndikk nga ma dóoroon yonent bi yëkkati kaala bi nii ne ko fayul ndeke waa ji da doon xool xaatimu nubuwa bi rekk lëng yonent bi jooy jàkka ji noonu la ñu jooyee ba kenn kenn kenn xamatul nooy def mu jigi ñu jël yonent bi nag yóbbu ko gis nga samedi boobu ñu ko yóbboo ci néegam timis yonent bi jiitewu ko toog nañ di ko xaar pour mu jiite nodd nañ lu yàgg ñëwul bilaal dem yëndu fekk yonent baa ngi xëm xëm lu yàgg ximmaliku ne inna lil mawti la sakaraat ay waay dee moo metti yaa Aysa mi ngi jël benn morso def ko ci benn leket da koy tooyal teg ko ci jëwu yonante bi su ko ci tegee mu wow koŋ ñu fóotaat teg ngir wàcc tàngoor bi yonante bi sallallahu alayhi ne muru ababakar bakar fal yu salli binnaas wax leen abu bakar mu jiite nit ñi wax ko xëm xam ba ci yàgg ximmali ko waat ne sama poos day am na ay diinaar yu ci nekkoon bariwul saraxe leen ko xëmaat jigéen ñi Aysa jóg bi mu jógee Bilaal a ngi taxaw ci bunt bi Aysa comme xam na ni Abu Bakar dafa gaaw a jooy Abu Bakar musul jàng faatee ci julli ba mu jeex te jooyul ba julli gi tardé xol bu tooy la ko yàlla mayoon comme yaa sa xam na ni Aboubacar nii la mel yaa Aysa changé yónnent bi ne wax leen Umar ibnul Xattaab mu jiite ah bi ñu waxee defar sàppe yi liqaam Umar ibnul Xattaab na ca kanam moom bu doon jàng baat bi dafa foor dañ koy dégg abu Aboubacar bu doon jàng baat bi dafa oyof waaw ah, wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtagi bayna dalik bi mu ko defee yonent bi ximmaliku dégg Umar ibnul Xattaab di jàng faatiya bi jeexagul rek yonant bi ne laa yaba allahu walmuminuuna illa aba bakar déedéet yàlla bañ na jullit ñi bañ nañ abu bakar rek moo war a jiite yonent bi du dund gis nga bi mu ko waxee nga xam ni saxaaba yi ñu ñu yar lañ Umar dafa arrière abu bakar avancé nekk fanaan yonent bi dama toroxal waroon naa bàyyi ba ma jeexal mais diine la du xalaatu nit abu bakar àgg la julli bi yonent bi topp ca àgg ne Aïcha ak Xafsa xaalis bi ma leen waxoon ngeen jox ko ndax joxe ngeen ko ñu ne ko déedéet ñun kay yow la ñu tal yaa ngi nii feebar ñuy génn di joxe mu ñu ko yonent bi nag ni yéen dëgg dëgg dëgg yéen ay mbokk Yuusuf ya yéen daal jikkoy jigéen ngeen yore fu ñu leen sante balaa ngeen def ngeen def seen soxla mu ngoog nag moo tax boo nekkee góor gu yàkkamti yàgg sa soxna du ngeen juboo am na góor ñoo xamante ni fat su ñu la sante nga yéex ñu jóg def gis nga jigéen foo ko santee léeg-léeg mu def soxlaam boole ci sa bos gis nga ko yonent bi dafa wax loolu xamaat bi mu xamee nag dimaas ci suba yonent bi tane saxaaba yi dañoo toog di ko xaar ci fajar bi pour julli ñu jékki rek ndeysaan gaa yi julli nañ ñaari rakkay fajar ba pare euh, senegal li ñuy def lu bari ak diine dafa wuute gis nga fajar fu ñu ko noddee nit war naa jóge këram sangu waxuma jàpp de sangu jana ba génn jàpp sol yére dox ñëw ci jàkka ja julli waaye ñun salaatu xayri mina nawm asalaamaaleykum ñoo ñun ñun ñu ñoom li ñu am ci suñu réew mi moom ñun rek ñoo ñun rek ñoo mel noonu te salaat xayri mi nit nit doo ko woo ba pare commencé yow yaa ñu woo yaa ñuy wax ni julli moo gën nelaw ñun am na ci koo xam ne balaa julli il faut mu sangu am na koo xam ni il faut mu préparer kër gi daa sori nooy waxee salaat xayri naw mi rek bëgg kàbbar julli mooy nee moyen bu ñu nee salaat xayri mina nawm au moins quinze minutes war na fi mun a dox quinze minutes war na fi dox boo demoon ci dëkku naar yi bu ñu nee salaat xayri mina nawm sa kër ngay génnee dox ndax nit ñi dina ñëw julli ñaari rakk ba pare ñeneen ñi sax def seeni nawaafil après imam bi doo ko julli loolu la ñuy wax xoola fii timis ñun xamuñu heure dog ak timis ñun fi ñu noddee lañuy ñuy jullee te fekk dañoo war a dogu ba fiix jóg ndànk julli ay mu ngoog ñun daal suñu diine mu ngoog rek diine kalama ñangaan la xanaa diine alternance la bokk yonent bi sallallahu alayhi bi mu yërndoo bi saxaaba yi seen ko ñépp kontaan alhamdulillah sufiya rasulillah yonent bi wér na wér na yonent bi génn ñëw mu génne ñëw saxaaba yi lëngu ko ñii nuyu ko ñu julli ba pare mu toog tuuti jóg Abu Bakar fekk ko mu toog nag ne ko fan yi yépp dama aye woon ci soxna sa ca Aliya ndax sa feebar moo taxoon dew ma waaye dama ñëw tàggoo pour war faa dem yonent bi ne ko demal Abu Bakar dem Abu Bakar daa dem rek même pas vingt minutes feebar bi jàppaat yonent bi ndeysaan mu xamaat foofu nag la Abdourahman ibnu abi bakr ñëw seet si yonent bi ci yoor yoor gi bi mu ñëwee fekk yonent baa ngi tëdd bëgg a jóg munta jóg bët setu altine bëgg a jóg mënul jóg yonent bi bu tëddoon ku ñëw day jóg nuy la ànd ak yow mu ko defee ak agsi yonent bi jéem mënul yaay sa teg ko loxo ne ko toogal mu toog waaye mi ngi xool abdurahman ndax abdurahman mi ngi yor a socc di soccu yonent bi xool ko ba ci yàgg Aysa ne ko Abdurahman mun naa mu ne ko yonant bi sa socc bii la soxla Abdurahman jël ko jox ko yaa Aysa yaa jël socc bi socc ba pare jël muucu ko jox yonent bi yonant bi socc nee na ba maa ngi dégg bëñ yi ni muy defee kiic kiic mu jël socc bi delloo ma ko Aysa nee na ma jël socc bi sexaat ko muucu ko jox ko Abdurahman delloo ko jékki ba ci yàgg rek usaamatu bnu zeyd ne tëll nuyoo nga xam ni kooku yonent bi su ko gisoon du am sago alxibb ibnul xibb lañ ko doon wax dafa bëggoon yonent bi yonent bi bëgg ko ndax usaama yonent mosu ko tollale kenn ndax ki ko jur mooy zeyd ibn xaarisa ki ko jur ci jigéen mooy umm ayman ki bootoon yonent bi moo jur usaamatu bnu moo tax yonent bi ñaar ñi mu gën a bëgg ñoom ñoo jur usaama moo tax bu séenee usaama sët la ko def ah, du ci am jàmm day jóg usaama ñëw yonent bi mënta jëkk usaama sëgg ci wetam yonent bi taf ko ci dënnam di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ba doyal daa di koy bàyyi ci la ko nee nag maa ngi lay dénk mission boo xam ni mooy incha allah xare war naa am ca fa ñu reyee woon sa baay yow yaay jiite xeex boobu yow yaa koy jiite usaama ñëw toog toog jóg génn rek Fatima ñëw agsi rekk fëgg nuyoo yonent bi su ma see seen Fatima mu ñëw day jóg taxaw day fóon Fatima ci jébi foofu la ko daan fóon mooy fóonu baay ak doom Fatima ñëw yonent bi mënta jóg rangoo ñi tuuru allahu akbar mënul jóg rangoo ñi tuuru Fatima dafa nuru yonent bi ci taxawaay ci bind ci kàddu ci lépp copie conforme jigéen rek moo leen tàqale jigéen la kii góor la mais léppam Fatima buy dox bu la jiitoo danga naan yonent bay dox su wax ak yow nga ni yonent bay wax nee na bi mu ñëwee toog yonant bi joxoñ ko baaraam mu sëgg yonent bi déy ko daf ko déy rek Fatima muuñ mooy dafa ree ba ci yàgg mu déeyaat ko Fatima jooy loolu bi ñu ko laajee Fatima ne ko première wax bi dañ la ko wax nga ree mu ne sam papa daf ma ne mankat jibril at mu nekk benn yoon la doon ñëw di jàngalanteeg man alquran waaye at mii def na ko ñaari yoon li ma ci déggee mooy dama ciy dee loolu moo jooyloo Fatima nee na moo ko jooyloo waaye ba ci yàgg yonent bi woor ku mu ñëw mu ne ko xanaa bëggoo sama njaboot nga njëkk ma ci fekk ajjana mu ne ko ah kay mu ne loolu moo ko reeloo nee na bi mu defee loolu ndeysaan jékki rek xëm bi mu xamee rek Fatima yuuxu ne waa karba abata ay waay sam papa jàq na yonent bi ne ko yaa Fatima la karba abika baada al yawm ne ko bis ni ki tey naqar bu sa papa amoon ci àdduna jeex na jafe-jafe bu mu amoon jeex na dana dem boroomam fay ko allahu akbar bi mu waxee loolu Aïcha jooy xaf sa jooy jekki ba yàgg ay jigéen ñëw di ko seet si ñëw nuyoo bi ñu ñëwee ndeysaan ak fi ci néegu yonent bi nuyoo xam nga tegginu diine day wax boo seetee ku feebar bul yàgg jigéen ñi ñëw nuyoo yonent bi ñaanal leen ñu dellu jigéen ñi dañoo dellu tooguñu ay waxtu rekk yonant bi xëm bi mu xamee lu yàgg mi ngi teg boppam ci pooju yaa Aïcha Xafsa mi ngi ci wetu yaa Aïcha yore morso bi tooyal ko teg ko ci dënn yonant bi jébi mi ngi ñaq Aïcha ne dafa gis yonant bi téen xool ci kaw ne laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat yëkkati baaramam ni allahumma rafiqal ala loxoom wàcc mu ne dee metti na ne yàlla amul benn buur bu dul yow yàlla maa ngi ñaan àndaaleeg yow maa ngi ñaan àndaaleeg yow rek ñu dégg yaa Aysa ne waa muhammada yuuxu mu yuuxoo ne ay waay ñàkk naa muhammad rek nit ña ca kër ya génnandoo daw rëppatal rëppatal yonent bi gaañu sallallahu alayhi wa bis du gën a metti bés boobu ci taarixu jullit ñi bis du gën a metti bés boobu jullit ñi daw yuuxoo yi Madina dafa mel ni tremblement de terre moo fa am poussière bi bari na picc yi yëngootuñu garab yi yënguwuñ yuuxoo yi bari ñii ci seen kër yi la ñuy jooyee ali ibn abi taalib bi mu déggee ñu ne yonent bi gaañoo ne dafa tëb tànk yi lafañ mënatul dox muy raam nii di raam ngir daw jëm kër yonent bi Ousmane ibn Affan dañoo daw ne yonent bi gaañoo na mu ne ba ba ba mënatul wax làmmiñ bi muuma xamatut lu muy wax Umar ibn Xattaab moom dof bocc jaaseem ne yahudi yi dañuy wax ni yonent bi dee ku ma dégg nga ni Muhammad dee na ma dagg sa baat yonent bi dafa wuy ji boroomam day ñëwaat comme ni Moussa defoon kenn ñemeetul wax muy waaxu gauche waaxu droite yore jaaseem jàmbar joo xam ne ku mu dajeel duma la bu nee bu kenn wax kenn du wax ñépp ne tekk unay si kenn la ci saxaaba yi mu ne allahuma in kaana hada alxabaru xaqan saadiqan faami basari xatta laa ara ahadan baada rasulillah mu ne yàlla bu dee li ñuy wax dëgg la yonent bi dee na maa ngi ñaan sama bët tuuruma gumba ba dootuma gis kenn ginnaaw yonent bi da ko wax rek gisatul keemaan bu ne saxaaba yi def ko am benn saxaaba bi mu déggee wax ji rek ba cët war fasam fan la jëm aaliya aaliya ci madina la nekk xaw naa soree jege 3 kilomètres waa ji rëppatal fas wi abu bakar dafa génn ci néegam taxaw ci sàkket yi xool seen fas wuy ñëw daw bu jéggi dayo abu bakar ne ko doxoo jàmm de doxoo jàmm de waa ji day agsi ba ni abu bakar tuufiya rasu abu bakar tëb ne ko yonant bi gaañu na waa ji naaru góor la yore mënatul dab abu bakar abu bakar mbokk yi daw ba agsi bi mu agsee ñépp jooy yi bëri na kenn déggul abubakar ñëw tiim yonent bi sallallahu alayhi wa jubal néegu yaa aysa fekk yonent baa ngi tëdd ñu ngi ko muuree darab boo xamante ne bu weex la am ay tracé yu bëla yu sew lañu ko muuree abubakar ñëw muri yonent bi di ko xool ne ko tibta hayyan wa mayitan wallahi ya rasulallah lawla an nahaytana anil bukaa ne ko yaa teey bi ngay dindu yaa teey bi nga dee ne ko boo ñu terewul woon jooy danañu jooy ba ma Madina suñuy rangoñ nekk géej bu ay bato di jaar waaye nag ah yaa nu ko tere moo tax mënuñ ko xam nañ ni ku mel ni yow dootuñ ko am ànd ak yow yàlla rek moo ñu mën a tàqaleek yow waaye bu fekkul woon ni yàlla ñu tàqaleeg yow boo yéegoon ba ca asamaan danañu raam fekki la fa di wax di wax ba ci yàgg muur yonent bi génn ne ilayya ilayya ibadallah ne jullit ñi ñëw leen ñëw leen ñépp ñëw Umar continué rek ku ne yonent bi dee na maray Abu Bakar ne ko yaa Umar mu ne mu ne balagani annaka taqulu anna rasulallahi ma maat ne ko dégg naa nga ni yonent bi deewul Umar ne ko waaw waaw inna min al ay yahud yi ñooy taxu ni yonent bi dee na yonent bi deewul dafa wuy ji boroomam léegi mu delsi comme ni Moussa defoon ñëw ku ne dee na ma dog sa baat Abu Bakar xam ni Umar dépassé na ndax nit dina toll ci yenn kaa yoo xamante ni dootul ànd xelam Abu Bakar ne ko alam taqra qawla allahi taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun fa saqata Umar ko Umar xanaa danga fàtte borom bi nee na yonant bi dangay dee ñoom it danañu dee Umar daanu xëm Umar nee na aaye boobu dafa mel ni keroog la doog a wàcc ci moom daanu xëm nit ñi nag doog a jooyaat nag ndax li dal Umar moo jooyloo ñu bari ni mu daanu xëm ah yëf yi metti Abubakar taxaw waccaga ne man kaana yaabudu muhammadan te bi mu koy wax rangooñam a ngi tuuru abu Aboubacar léegi baat bi day tremble ndax ñépp am naqar ne man kaana yaabudu llaha fa inna allah xayun laa yamuut wa man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat mu ne ay yéen jullit ñi gëm leen yàlla ku doon jaamu yàlla continuer yàlla ngu fi du fi jóge mukk ku doon jaamu muhammad nag perte nga ndax muhammad dee na aa ah, bi mu waxee loolu nag mbokk yi jooyoo yi nag metti nag ñépp di jooy abu bakar woote ali ibnu abi taalib ñëw abbas ñëw fadl ibnu abbas ñëw xusam ñëw bilaal ñëw shukraan ñëw munaa ah, nu ñuy def ñu waxtaan gaay na ah, xanaa ñu génne ko yóbbu ko sàkketal ko sang ko foofu abu bakar ne maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ñun yonent yi fu ñu dee kenn duñu buuseel foofu lañ ñuy suul ñu ne ko ah kon de li nga wax mooy am dëgg la ñu ñëw xool fi bopp bi toll ak fi tànk yi toll ci lalu yaa Aïcha lal boobu Abdurahman ibn Awf moo ko mayoon yaa Aïcha pour mu nekk néegam léegi ñu tollale bopp yonent bi jël benn bant jam foofu ci suuf teggi lal bi jam ci suuf tolloog fi mu tëddoon juste fa la ñu rëdd foofu la ñu rëdd nag muur yonant bi gas ñii gas di gas ñu ne ñuy sang nu ñuy def yonant bi ne waa këram Abu Bakar ne waa kër yonent bi ñoo koy sang ak Abbas Fadl doomu Abbas la Xusam doomu Abbas la Suqraan ci kër gi la nekkoon ak Bilaal ñoo doon sang yonent bi ñu jóg ba bëgg a tàmbale ñu ne ah anu jarridu rasulallahi kama nu jarridu mawtaana ah problème am na de dañu koy futti comme ni ñuy futtee ñi ñuy sàng gars yi ne xel xalaatu ko futti yonent bi xel du ko xalaat rek ñoom ñëpp ñu xëm foofu dañoo tëdd rek ñoom ñëpp mel ni ku nelaw dégg ñu naan anirsilu rasulallahi fi sawbihi dégg baat bu naan leen sang leen yonent bi ci ay yéreem ñépp siggiwaat noonu lañ ko sangee ñuy sotti ali ibn abi taalib moo ko sang radiallahu anhu rakkam la yonent bee ko yar bi ñu ko sange ba pare nag tàkkusaan di jot dëkk bu nekk nit ñi ñëw nañ madina fees del del del del yaa ay sa nee na na mu feesee musu koo feese ne man daal gëm naa ni malaaka yi ñëw nañu ak jinne yi allahu akbar ne bi ñu paree nag gas teg ko ci pindu pax bi war a kan mooy dugg ci biir faatima daw bi mu ñëwee dugg ci biir néeg bi gis ñu yëkkati yonant bi bëgg yoor rekk mu yuuxu ne maada ala man samma turbata ahmadi alaa yasum mada zamani gawaaliya subbat alayya masaiba lawla annaha subbat ala al ayaami udna layaaniya lan moo ma dal sama papa ngeen di ko jël di ko dugal di sotti suuf ci sama baay saxaaba yi ñépp jooyo ñu tegaat yonente bi kenn mënatu ko suul mu ne ngeen bëgg a jël sama pàppa gas suuf suul ko ci ah musiba bi ma dal tey buñ ko wàcce woon ci guddi mu doon bëccëg mbir mi sottiwul kenn nangootul laal ndax ñépp joxoon Fatima respect ah Ali ibn Abi mooy boroom këram moo war a jóg ak façon Ali moo jóg te Fatima Fatima di jooy ñépp jooyaat nag toogaat nañ lu tollook waxtu ci jooyaat yooyu ñu naa ah, jullee yonent bee def da Abu Bakar ne na yonent bi sallallahu alayhi noon na su génnee àdduna nañu ko teg lu tollook waxtu ndax malaaka yi ñoo koy njëkk a jullee ñoo koy njëkk a su paree nit ñi nañu ñëw moo tax teg nañu yonant bi lu tolloog waxtu malaaka yi ñëw jullee ko ci jullee goo xam ne yàlla rek moo ko xam gisuñ ko waaye xam nañ ni loolaa am jibril mikaayil israfil ñépp ñëw jullee yonent bi sallallahu alayhi bi mu paree nag jullit ñi doog a ñëw ñu ne nan lañuy def ñu ne góor yi waa këram ñooy jiitu après jigéen ñi après góoru saxaaba yi nan lañ ko doon jullee kenn par kenn yonent bi mooy imaamu imaam yi kenn du ko jiital nekk imaam ñu ne sa ginnaaw mun munta nekk moo tax par kenn kenn mooy ñëw kàbbar ñeent ñaanal ko dem keneen ñëw loolu moo tax altine talaata ci guddi lañ ko doog suul ndax jullee bi moo jël temps waaw ah, julle bi moo jël temps ndax par kenn kenn ñooy dugg léeg-léeg par ñaar ñaar dugg lu xat ci néeg bi rek ñooy dugg julle ñaan dem te kenn du nekk imam ku nekk da ngay ñëw rek ñaan sa ñaan dem bi mu paree ñu denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor la ñu nekk guddi na te fi ñu ñibbi daa sori te fan yi danoo sonn lool bis bu nekk <laughs> ñaari conférence léegi ci laa pare ñëwaat kon maa ngi jéggalu ñépp di jox sama ndénkaane jigéen ñi di ko jox góor ñi mooy li ma leen di dénk ci àdduna mooy amuñ fi dara dara lu dul jaamu yàlla lu fi nut ut lu dul jaamu yàlla perte nga ko gis nga seen jëmm yu oyof yi àjjana rek la xaj yàlla nañ fa yàlla yóbbu jigéen àjjana rek la xaj àjjana rek la xaj xaju feneen àjjana góor ñi it àjjana rek lañ bëgg yàlla nañ ko yàlla defal maa ngi leen di dénk ngeen respecté seen borom kër yi képp ku respecté sa borom kër danañu respecté sa doom te jigéen teraangaam mooy doomam sa doom nag mooy sa jëkkër copie konforme olof nee na ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom kenn du ñulug dëxin yàq ceeb waaw kenn du ñulug ceeb yàq maafe ni nga mel ci pàppay xale bi rek la xale bi mel kon nag soo bëggee sa doom am jabar mu déggal ku déggal la nga bëgg goro bu la déggal xoolal noo mel ak bàyyi sa doom bu fekkee sa bàyyi doom bu waxee nga ciipatu mu wax nga sànni ko ay baat tàcc ko yàlla nee na baax na maa ngi lay xaar sa doom papa Koli dana dem takk benn jigéen mu ñëw ci ko boo waxee mu ne la féet see dimbale ma waaw ah, yaa ko doon def bàyyi papa Koli moo tax yàlla jox la keneen mu taxaw sa place asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.